ñu ngi dem seeti Italie ki nga xam ne mooy seen président sénégalais yi nekk Italie bëri macha allah fa tuwar fa tiitaange ak kel bu ñaar am na ci ñëw Ablaye Wade ci réew mi ndax doom jooja boppam Ablaye Wade nee na kenn du ko laal kenn du ko jege intervention Union européenne ñu dem ba Italie seeti ki nga xam ne mooy seen président foofu ci Italie Buongiorno, buongiorno. Bergamo non è buongiorno. L'idro Adriano. Sincio Caterine, ma c'era. Buongiorno. Italiano. Selam alaikum. Selam alaikum. Senegal في إيطالي ما شاء الله. برغامون إيطالي. ميلان إيطالي. نوفيرا Capisce? Milani, Romi, italiano, Sénégalais. i Ablaye No trabaja, no dinero, trabaja dinero. Italiano. Bergamo, Lidro Adriano. John Wayne. Tirca sénégaliano, Capisci da Tarnamo, io non bacio. E te che non bacio. Buonas Giassin, c'ho quattro. Tincerina. Mucciorina. Ma chissà la c'è una democrazia. Come, come on. President Wad. Dafa Sénégal. ànd doom Karim Wade ñëw aéroport Diass. waaw moom Macky Sall Tikincho doomam moom dafa xaru Mauritanie si Jakarta te ceeto mon te Karim Wade cantare ko mon ceere baake comme que léegi bugul ku laal doomam Macky Sall Senegal nekk italiano c'è un par con Bergamo italiano mo c'è che c'è sere 14 ñëpp ñu ngi am tiitange kon bul laal bul jekki bay doomu jàmbur mu dem ba egg yow nga lijjanti après mais bul laal bul jekki si giocatore non sénégaliano un montore che ciarebane co non a vinacinare non toccare non a vinacinare non toccare non a vinacinare non toccare bulcolal bulco jeghe non avvicinare non toccare non ti avvicinare non toccare non avvicinare non toccare non ti avvicinare non toccare non ti avvicinare non toccare non ti avvicinare non toccare non avvicinare non toccare avvicinare non toccare non avvicinare non toccare